na ba tegal Barthélemy Ngom ak si na ngir yaatal xabaar yi ci wolof Barth salaamaaleykum waaleykum salaam Babacar ñu ngi lay nuyu nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu tàmbali kook mbirum vigile bi ay manifestant euh, jaawaat lekk gendarme tax ñu door ko ba mu mujj ñàkk bakkanam ca Yoftongoor am na ñaari nit yi ñu njortu ne seen loxo taq na ci teg nañ leen loxo fukk ak juróom ñetti euh, chauffeur yu Sénégal yi ay terroriste attaqué woon ca Burkina Faso ñibbisi nañu démb si guddi euh, ñoom ñëpp tiis la ñu ñibbisee ba mënuñu fàtte li ñu dund ndax foo natt méttit bi rek weesu na ko ba tax na ñuy sàkku ndimbalu autorité yi f quatre gannaaw ba ñu ko soseek léegi tey lay natt dooleem mobilisation la woote eh, tey ci ngoon ca place de la nation bokk na ci li leen tax jóg xeex ngir Macky Sall bañ fee am troisième mandat bokk gis-gis eh, dana bokk ci dialogue eh, politique bi ñuy waajal parti baab Diop ne bokk na gis-gis ak njiitu réew mi wala boog sax ñiy sàkku ñu dialogue fii ci Sénégal tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne xibaaru aaday Ana Rocha yéen i kay yeeg Mamadou Mouhamed Abdou ca moo fare ci machine yi mbokk yi nuyu nañ leen rafetlu seen ànd ak rajo Futura Media xibaar yi ñu tàmbale kook euh, communiqué bi nga xamante ni. procureur de la république génne na ko ci mbirum vigile bi ay manifestant euh, jaawaatleeg euh, gendarme tax ñu dóor ko ba mu mujj ñàkk bakkanam ca yof tongoor am na ñaari nit yi ñu njort ne seen loxo takk na ci ñu nga leen téye am na it enquête yoo nga xamante ne ubbi nañ ko ci ba fii mu ngi wéy Mamadou Mohamed Ndiaye. parquet bi dafa leeral ci communiqué am ne Louis Ndong ancien militaire la bu doon liggéey ca Falcon Security bés bu njëkk bi mu tàmbalee liggéey ci lañ ko woowee na ko soxnaam dëkk Yof Tongoor tollu diggante dafa soxla ñu taxawoo ko maanaam soxna si dafa ëmb mu bàyyee ko fa dem Yof Tongoor ba mu yegsee dajeeg ñu doon manifester ñu jaawale ko gendarme infiltré ndax ni mu solo jàpp ko di ko fitnaal di ko dóor parquet bi di leeral ci communiqué bi ne jamono ji ñu ko doon fitnaal mi ngi doon wax naan doob gendarme ab vigile la ko ci lañ ko jàppee duma ko ci xibaar yoo xam ne parquet bi mi ngi ko nangoo ci dëkkandoo yi yi ñu teg ci it ay leeral yoo xamante ne ji dal gëstu yu ñu def wane na ne teg nañu loxo ñaar ñoo xam ne jàpp nañu ne seen loxo génnul ci li xew te it ñoo ngi wéyal enquête bi parquet bi tëjee communiqué ci di jaale njabootug liy ndoom mi ñàkk bakkanam ci yooyu la anam ñi ngi sàkku képp koo xam ne am nga ci xibaar yuy mën a leeral li ñuy lijjanti nga yegge leen ko Mamadou Mohamed euh, Ndiaye F24 gannaaw ba ñu ko euh, soseek euh, léegi nag ni ki tey jii lay natt dooleem mobilisation la woote bu trois heures jotee ci ngoon ca place de la nation bokk na ci li leen tax a jóg nag xeex ngir Macky Sall bañ fee amee troisième mandat waaye it ñu libeere ñi ñu jàppee ay détenus politiques loolee nag garde so Sceaux ministre de la justice yëkkati na ci kàddu nee na mënuñu ñàkk atte koo xamante ni daal dafay dëkke woote ngir insurrection am ci réew mi naka noonu it dëkk di defar ay cocktail molotov te jubluwu ci dara euh, lu dul euh, lu ñaaw Ismaïla Madior Fall kàddu yu mu denk Kumba Sanjaan Faye Sénégal amul détenu politique loolu amu fi li fi am mooy lan muy ku mënti nekk mu yéen muy man ku def loo xamante ne dëppoowul ak yoon dañu lay teg ci yoon ndaxte démocratie aussi mooy loolu mooy nit ñi am nañu liberté soo wàccee yoon wala nga tooñ yoon ñu tegaat la nag ci yoon loolu moo fi am mais amul détenu politique amul benn journaliste boo xamante ni dañ ko jàpp pour délit de presse amul mais am na ñaar lañu ñu woon sax léegi benn la boo xamante ni dëgg la mu ci kaso waaye lu mu def diffusion de fausses nouvelles moo loo xamante ni da koo wax te tegoo ko fenn saper le moral des forces de défense et de sécurité ne armée bi de gendarmerie bi ak lii wax loo xam ne tegoo ko fenn su la laajee nga di du ma waxee du ma révéler samay sources loolu de moo fi am dëkk yu bari na ci monde bi laay wax ak Afrique boo xamante ne su amee ay manifestation surtout manifestation bu ñu tere dañuy tiire li ñuy dee fii loolu amul fi li amoon mars nga xam ne y a eu des yoo xamante ne sax ñu ngi ciy def loolu ma ne du tradition au Sénégal politique bi am en matière de maintien de l'ordre c'est l'utilisation d'armes non létales ñu utiliser ay balles di tirer moo tax soo leen seetloo ay grenades lacrymogènes la ñuy utiliser Ismaïla Madior Fall garde des Sceaux ministre de la justice mu ngi yëkkate yi kàddu démb ci bi ñuy natt euh, tolluwaayu droit de l'homme yi maanaam àq ak yelleefu doomu adama yi fii ci Sénégal commission africaine des droits de l'homme et des peuples moom moo ko doon natt wàllum politique euh, ba léegi ak bokk gis-gis mi ne dana bokk ci dialogue politique bi ñuy waajal parti Pape Diop ni bokk na gis-gis ak njiitu réew mi wala boog sax euh, ñi sàkku dialogue bi am fii ci Sénégal dogal goo xamante ni daal bokk gis-gis da ko jël nee na ngir intérêt réew mi ci euh, parti Pape Diop bokk gis-gis ñu teewlu kook de Déthié Diop. bokk gis-gis ci boppam bi mu waxtaanee ak euh, kuréel yi nga xam ni ñoo nekk ci département yi ak kuréelu intérieur yi nënk parti bi dañ ni dinañ wuy ji ci dialogue boobu nga xam ni le président de la république euh, woote na ko ngir ñu waxtaanee réew mi ñu waxtaanee yenn ci ponk yi ci wàllu politique ndax nag réew buy dox ñi ko seq dañu war di waxtaan donte wuute mënta ñàkk waaye li gën a métti ci àddina te ñu xam ko muy guerre mondiale sax ci taabal la mujjee ñu waxtaanee da ci ciy la mooy élément bi ci ëpp solo mën nañu waroo ci gis-gis waaye waruñ di gëj di waxtaan ndax waxtaan ci la jàmm xaj waxtaan ci la ku nekk di am lum nangul moromam am lum bañal moromam mais lépp ci kaw démocratie lii moo tax bokk gis-gis ni ñun danañ wuy ji ci waxtaan woowu ndax nag sunu parti li mu gëm mooy politique xeexum xel la du xeexum doole du xaste du doore du saaga waaye fexe ba nekk ni askan wi soppeeku waxtaane ñi nga bokkal gis-gis nangul ñi nga bokkul gis-gis waaye lépp doon ci kaw yiw ak yar ci kaw waxtaan lool mooy màndargaal sunu kilifa di la président Pape Diop looloo tax ñu ni danañ wujj ci waxtaan woowu incha allahu rabbi Moussa Diakhaté bokk ci parti bii di euh, bokk gis-gis Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly euh, njiital euh, mouvement nekkal fi askan wi moom itam nee na dana dem wuyu ji ci dialogue bi doon sax àndul benn yoon ci Macky Sall am fi euh, ñetteelu euh, mandat euh, moom mu ngi sàkku sax ci mbooleem ñi seq kujje politique bi ngir rek ñu bañ a encourager lii di fitna ci réew mi ndax fitna moom jigul kenn Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nee na it mu ngi wéy di taxaw ci wetu askanuk Ngor rawatina Omar Mbow Omar euh, Mbow euh, Omar Mbow donc euh, ñu war ko ñu war a ànd ak moom ci kaddu yooyu nga xamante ni Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati na ko mooy njiital mouvement nekkal fi askan wi. yàlla rek moo mun a tere Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mu bokk ci dialogue bi. loolu laa gëm parce que boo si nekkee da waxtaan ak kii yoon réew mi fii ba mooy président de la république bu passé février 2024 nekkatu ko waaye tant que fi nekk bu wootee war nañoo dem wuy ko pour intérêt réew mi man intérêt réew moo ma ñor parce dama fay nekkal askan wi. kookee nga xamante ni moom moo jiite mouvement nekkal fi askan wi ne dina dem ci dialogue bi nga xamante ni mi woote na ko waaye daal àndul ci njiitu réew mi bokk ci dinaa ko xeex ba nguuram daanu parce loolu laa gëm opposition radicale contre Macky fukki at benn xeex naa ko ay weer ñoo ko des. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne àndul itam ci doxalin njiitu bu Pastef bi ñu sukkandikoo ci moom Ousmane Sonko dafa war a nangu te it jëfee ndogalu yoon. yoon dafa wax ne ci article vingt neuf et trente képp koo xam dañ laa condamné moo xam sursis moo xam lu mën doon doo mën a nekk candidat pour le moment Ousmane respecté suñu justice lépp lu mu ñu dal suñu kaw ñu nangu ko xam ni loolu moom justice moo ñu ko teg parce que bu fi ndékku leen du fi nekk lu justice dogal du ma wax kenn naa leen kaay leen ngeen wàcc si mbedd yi kaay leen ngeen rey seen doom yi parce que justice damaa condamné wala justice damaa bëgg a condamné du ma ko def tey du ko defal du ma ngàññi force de l'ordre parce que ñoom ñoo la am ku yoon wax ni ko yow mënoo bokk mënoo bokk ñu yoon wax ni nañu bokk njiitu mouvement nekkal fi askan wi ne bettu ko bu fekkente ne ku jógi ci jamono ji ñu ngi xiiroo ak i ŋaayoo mu dellu nag di xamle ne moo ngi ci ginnaaw askan bu ngor mi nga xamante ni dafa nekk di xeex ngir ñu bañ a jël seeni suufa Umar Mbow ñu dem ca Touba ak njiital euh, parti bii di jiital Wareef le devoir en mouvement moom nag nee na dana dem wuyu ji euh, wooteeb njiitu réew mi ngir dialogue am ci réew mi moom Alhassane Niang euh, nee na nag du mos nangu ci candid ci troisième candidature bu Macky Sall Sall dana it opposé wu ngir amnistie bi nga xamante ni yëkkati nañu ko jëmee ci euh, Karim Wade ak kii di euh, Khalifa euh, Sall tu bu demee toog wa ci dialogue boobule fukki simili gannaaw juróom-ñetti waxtu. pour man a jege tey jii àjjuma lu ko dalee huit jot na sax ba euh, onze heures euh, syndicat gi ëmb liggéeykat yu Sonatel dañuy décréter euh, journée présidence passive maanaam dañuy teew rek waaye liggéey ga du nu ko def nu mu waree loolee nag ngir sàkku ci direction générale u kër ga ngir mu tollale ñëpp ci anam ga ñu leen yore maanaam it daal di. lijjanti seen i doléance mu gën a gaawee décision boobu nag ñu ngi ko de jël démb ci ab assemblée générale gu ñu doon amal Mouhamadou Lamine Badji mooy secrétaire général du syndicat gi ëmb liggéeykat yu Sonatel ñu teewlu ko. ay weer ñu ngi nii di waxtaan ak ci jiite Sonatel. ndax dañoo jàpp ne entreprise dafa bokk ci réew. Euh, suy am ay bénéfices bénéfices yi ñëpp ci war a gis seen bopp. client bi war na cee gis boppam. liggéeykat bi war na cee gis boppam. état bi war na cee gis boppam ñi moom entreprise yi war nañ cee gis seen bopp waaye li ñu seetlu moom mooy direction bi daal moom yitteem yëpp moom mooy na Sonatel am bénéfice waaye bénéfice na jëm ci benn wet rek moom mooy ci ko moom mooy actionnaire yi yokk na ay dividende waaye travailleurs yi boobu ba léegi sooy xool sax seen bébét su sottee mooy ren yi di travailleurs yi doon am dana far wàññeeku ñu ne loolu jaadoo ci yi moom waxee su ko yëpp xam nañ ne am na góorgóorlu boo xam ne war nañ koo def suñuy ak clients yi ci loolu wax ne comme que booba léegi ñu ngi jëflante ak direction te direction nanguwut a dégg nanguwut a gis waaw kon jot na nag ñu jëm ci ay mouvement mouvement de grève suñu préavis yi jeex na ni ngi tey moo tax suba danañ def journée de présence négative loolu nag li koy wund moom mooy liggéeykat yi danañ ñëw liggéey waaye danañ ñëw seen i position xëy waaye danañu bank seen i yoxo diggante huit heures ba onze heures donc loolu nag avertissement la boo xam ne ñu ngi koy def jàpp ne direction générale may ñu noo xam ne li ñuy laaj bu baax la lu yelloo la te rek dafa jaadu yi tamit sax ñiy liggéey Sonatel ay doomu réew mi la te lu ñu am yi tamit ci réew mi lay dellu si Mouhamadou Lamine Badji mooy secretaire général syndicat gi ëmb liggéeykat yu euh, Sonatel ñu wax ci doxub ñaxtu gi nga xamante ne mbooleem travailleurs municipaux yu commune bu Rufisque ñi ngi ko doon euh, amal li ñuy ñaawlu nag moo di yéexte gi ñu nemmeeku ci euh, yokkute gi ñu war a def ci seeni i salaire ak taxawaayu meer ya fa nga xamante ni daal dafa mel ni sax loolee fas yéene wu ñu ko defal liggéeykat ya a Amady Sissoko euh, bu intersyndical collectivité territoriale yi rek euh, dikk ñaawlu bu baax a baax Jaaji Njaay moo wax ci seeni tur ñu teewlu kook Abdou Diouf Diagne ñu ngi ñaawlu toujours ñàkk respect ak ñàkk considération bi nga xam ne état du Sénégal ak maire yi teg nañ ko agents municipaux yi ñu ngi tey njëkk tey si ñeenti maire yi nga xam ne tey jii ñoo nekk si Tëngéej tey bépp bi bañ defee seen évaluation ba léegi defuñu benn benn acte yóbbu ko petit centre xam nga loolu tamit dalul xel loolu dalul xel li doon dalloo xelu agents municipaux yi mooy suñu ñeenti maire yi tey nekk Tëngéej ñu def comme yeneen maire yi jël état yi yóbbu ko petit centre mais depuis ba ñu defee simulation ba léegi dañu toog di seetaan te loolu tamit agent yëpp ñu ngi koy ñaawlu bu ñu jógee si loolu ñu ngi ñaawlu tamit ministre de collectivité locale bi nga xam ni mooy Mamadou Talla démb mi ngi dem di inaugurer ay ay ay état civil te yow ñi ngay inaugurer dañu xiif huit mois ngi nii ñu ngi grève fajoo suñu soxla dem di inaugurer ay état civil liggéey ñu tey liggéey ñu ëllëg tant que suñu problème réglé wul ñu ngi wax tamit premier ministre bi ñun ñëpp am nañ déception bañ ko falee ñun ñëpp dañuy yàkkamti woon di kontaan mais moom tamit réglé wul suñu problème mairie réglé ñu suñu problème premier ministre réglé wuñ suñu problème ñu ngi interpellé nag tey président Macky Sall ñu ngi lay interpellé directement ndax waxtooñu ak maire yi même association des maires tamit la ñuy politique faale wuñu agents municipaux yi. Serigne moom nee na du nekk candidat ngir jiite union des chambres de commerce yi ci Sénégal. Euh, moom mi nga xamante ni homme d'affaires la di it meeru Kaolack li mu bëgg mooy ñu amal élection nu mu gën gaawee te respecté li nga xamante ni moo di loi bu 2017 euh, Serigne Mboup dafa ñàpp ne bureau bu fi nekk nii daal tegewul ci yoon euh, démb la ko xamle ci bi ab ndaje gu mu seqoon nag taskatu xibaar yi Serigne Mboup ñu teewlu kook Abdourahmane Diallo. li nga xam ne nii dafa nekk fii mu nekk lu ñëpp war a bokk mën naa la jox exemple lu mel ne port de Dakar port de Dakar dafa am benn pont bascule boo xam ne nii chambre de commerce investir ko kenn def ko dañ ko faa teg pour que camion yi fay jaar di enquête la cay génn looloo tax ñu ne comme dañ koy delloowaat commerçant yi ndax warta nekk charge ñoom léegi nag biñ ko joxee Dakar dafa waroon nag kenn ku ne su fa jaaree bu dee camion bu jëm Kaolack lam ca war a am mu am ko bu dee diw léegi nag loolu lay yor loolu nag laay kaas ñaareel ba mooy réforme yi ñu bëgg mooy ñu def ay réforme pour dem ay élection loolu nag liñ ci def mooy nax ministre du commerce nax ko tuddal ko ay décret tuddal ko ay loi duggal ko ci loo xam ne waru ci dugg ministre bi tamit xëy na bëgg jàmm xëy na bëgg wax lu leer bind ma naan ma wooteel pour fonctionnement de l'union ministre mënul convoquer assemblée générale extraordinaire mënu ma wax ne ma kon mënu ma bind ne ma convoqué mën na waxtaan ay waxtaan mën nañ ko def moom la ko war ci décret bi mooy toppatoo élection chambre de commerce yi ci région mu baax mu woote ñu élire président de l'union ñun loolu rek lañ koy mooy na toppatoo décret bi nga xam ne ni loi bi président def 2017 décret bi mu appliqué ko Sénégal dem ci élection mais man li leer ba leer mooy yaakaar naa président chambre de commerce intéressé tuma li ma intéressé mooy na tegu ci yoon parce que daf may amal njariñ dañ day tax relation internationale day tax tamit ñu am fu ñu mën a jooyee suñ problème mm. état bi am ko mën a waxal mm. te loolu moo gën ci état bi Serigne Mboup euh, euh, kaddu yi mu yëkkati dénk ko Abdourahmane Diallo fukk ak juróom-ñetti chauffeur yu Sénégal yi ay terroriste attaqué woon ca Burkina Faso ñoom nag ñibbisi nañu démb ci guddi ñoom ñëpp tiis la ñu ñibbisee ba euh, mënuñu daal fàtte li ñu dund ndax neñu foo natt méttit bi rek weesu na ko loolaa tax ñuy sàkku ndimbal accompagnement jëmee ci autorité yi ndeymati jang chauffeur yile ba tey tiitaange moo leen jàpp lu ni mel di feeñ ci xar kanamu fukk ak juróom-ñetti doomu Sénégal yile nga xamante ne ca Burkina Faso ay jihadiste ñoom ñoo leen jàppoon Mariam Sodo Ndoye loo loolu amee président de la république Macky Sall ak euh, suñu ministre madame ay Tall Sall def lépp lu ñu mën pour que suñu doom yooyu ñibbi si waat Sénégal si jàmm tey loolu am na. Xaadim loo bokk ci ñooñee mu ñuy nettali jafe-jafe yu ñu fa dund. dañoo jóge fii wàccee biir Nigéria tardé di ñibbisi bu ñëwee dóor yi fi nga xam ne fa la a defee suñu formalité mujj ci zone Burkina bi ñëwee amuñu même problème bi ñu jàpp si yoon wi même pas ay 100 mètres bi génn côté droite taxaw ci ko tëli bi daal di may arrêté brusquement ak ay ngànnaayam dama freiné rek moom ma wàccal ma wàcc mu taal motom topp ñu des wàcc mu dugal si àll bi trois personnes la ñu si lañ mujj woo seen chef français lañu laaj ñoom ñi leen di donte sax bu dee ginnaaw gi jihadiste yi dañ leen a mujjee bàyyi. ndoxum boobu lañ dagg teg ci coussin chauffeur ci suuf taal briquet fu ñu dugal jaay si biir néew yi ñun moom jàppoon nañ dañuy rey ba man ba ne sant gaan bi armé na ba bu maa dóor bal yàlla moo ko dugal parce que bëggoon ubbi sama porte arrière mun ma ko ubbi mun ñu ngi dox fi ñu dugal ñu ngi gis ay ñu dee mais dañu jàpp aussi ñoo ñu dee ñun gënuñu leen muy lu metti ñu dund ñëw nañu ba ci benn dëkk ñu accès rek dañuy sombi pour ñoom lu ñu nekk ñu bari ci ñi nga xamante ne ñëwoon nañu fekk si ñibbisi chauffeur yi lay ay kuréelu commerçant la ñu fi teewal ñuy ñaan nag yi doomu Sénégal nguur gi daal di leen di jàppale ci wàllu pàcc waaye itam ci ay koppar Ndeye ci Dieng mbuur rajo Futur Média sport beeg Cheikh Tidiane Diagne Cheikh noo def. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom Diagne ba yaa ngi ci jàmm. <laughs> waaw sant yàlla bu wér. ayca <laughs> doxalal. ayca <laughs> dañu koy daal di door rek uh, wàllu football. ak Coupe d'Afrique des Nations bu jagleel uh, moins de 17 ans yi di équipe nationale cadette yi Sénégal nag xam na kan lay tasal ci wàllu demi-finale ni ki dimanche gi diggam ak Burkina Faso lay daal di doon Burkina Faso ma nga xamante ni démb ci quart de finale gu doxoon ci digg ak ñi di waa ñoom ñoo ci daal di am ndam ñaari bal ci benn. Euh, leneen yi nga xam ne daal mën nañu ko wax moo di gaynde yu Sénégal sax daal dañu bawoo euh, Alger yi nga xam ne fa lañu nekkoon daal di wutali beneen dëkk di Annaba Annaba nag bu ñu ko waxee xel dem euh, ci jamono bi nga xamante ne ci la Algérie organisé woon Coupe d'Afrique des Nations ak génération footballeur Sénégal yooyu la foofu nag la Sénégal di daal di li nga xamante daal moo di demi finale bi dimanche ci bu 16h jotee di heure Ndakaaru ni ki démb nag jàppale ni nga xamante ne daal ñoo di waa ñoo di waa Afrique Euh, barki dem plutôt Sénégal mujj naa am ndam ci diggam mag ñi di waa Afrique du Sud de 5 à 0 Amara Diouf nag ràññee ci woon lool moom moo di capitaine équipe bi jot naa dugal ñaari but jamono gi sax ñu wax ak yéen moom moo di meilleur buteur gile tournoi daal na dugal juróom but waaye bu ngeen ko déglu ci ay kàddu moom ba tey doylu ko lu mu nag moo di gën a am ndam gi bu ko daa defee itam Sénégal mën a am ndam ci googule tournoi bi nga xam te ñu amal foofu la ci Je suis très content euh, d'avoir remporté ce trophée. kontaan naa loolu ci jël bi lépp trophée mbégte mu rëy laa am itam ci li nu qualifié demi-finale ba noppi itam qualifié mondial ndax loolu moo nekkoon sunu ñaareelu mébét su ko defee itam day tax ñu teg beneen jéego waaye itam am beneen expérience ñu ciy sant yàlla. waa dinaa bëgg a nekk euh, meilleur buteur nekk itam ki gën a xarañ ci bi lépp loolu laay ñaan waaw li am solo mooy man ma nekk ci li ma war rekk li ci des naa ko bàyyi ak moom. choisir le bon choix c'est ça. ba tey euh, ci lu jëm euh, ci googule Coupe d'Afrique des Nations moins de 17 ans yi ñii di waa Mali ñoom itam jot nañoo ak euh, ci wàllu demi-finale. ni ki démb mujj nañoo am ndam lu yaa seen digg ak ñi di waa Congo ñetti bal ci dara naka Sénégal dafay itam noonu la ko Mali daal di doxalee ci giile tournoi jot naa dugal lu toll ak juróom but ci ñetti juróom-benn but ci ñetti match yi nga xam te ne jot na ko amal euh, ci googule euh, Coupe d'Afrique des Nations Sénégal nag moo di meilleur attaque de tournoi dal na am lu toll ak fukki but ak ñaar ci ñeenti match yi mu jot football ba tey jii euh, encaissé wul benn but. ba tey ci du jëm ci wàllu football ay équipe nationale moins de vingt ans ñoom nag daal nañu bawoo Ndakaaru ni ki démb daal di wutali Argentine foofu nag dañuy daal di amal lii di coupe du monde bi nga xam te dañ euh, moo di Malick Daf Sénégal nag moom dina amal sax ay jongante xarito euh, diggam ak ñii di waa États-Unis ak itam ñii di waa euh, Corée du Sud ngir waajal kooku la coupe du monde ca Argentine ñu dal di waxtaanee ba tey wàllu football waaye bii yoon euh, ca Europe ak euh, lii di demi-finale Ligue Europa ni ki dem nag Juventus de euh, ci wàllu demi-finale aller bi mën nañoo jàpp ne sax dafa daal di rëcc ndax dama na bay ñàkk waaye mujj naa égaliser seen digg ak ñi di doomu Espagne un but partout seen but égalisation nag ko dugal nag moo di Youssef Nesri di doomu Maroc ci 97e minute de jeu leneen li nga xamante ni ki nga xamante ni mooy Youssef Nesri moom FC Séville la daal di moom moo égaliser l'équipe yi nga xam te moo di Juventus de Turin 97e minute de jeu moo di Federico euh, Gatti ñu daal di wax ci geneen euh, demi-finale bi doon dox itam démb ba tey euh, ci diggante AS Roma bu José Mourinho ak ñi di waa Bayer Leverkusen bu Xabi Alonso doomu Italie yi ñoom ñoo ci mujj am ndam benn bal ci dara lii di demi-finale retour incha allah dañu ko daal di amal niki jeudi benn di ñëw. ñu daal dellu suñu réew waxtaane wàllu lutte sans frappe ak drapeau chef de l'état yëf nag ca ndar géej ci lañ koy daal di amale dañ ko daal di door ni ki tey ji la ko jiit nag moo di tirage au sort bi euh, jàppaleen ni euh, ci poule A ba ña fa nekk moo di région de Dakar Kédougou jàpp Tambacounda euh, poule B Saint-Louis mi ko organisé Kaolack ak Ziguinchor poule C Fatick Kaffrine Matam ak Kolda ñoo fa daal di nekk poule D danañ fa fekk région de Diourbel région de Louga région de Sédhiou ak région ak RFM kumpa jeex ñu tàbbi ci xibaaru aada yi dalal ci Ana maa ngi leen di nuyu mbokk yi tàmbalee ko musique ak projet album numérique bu ñu dippee Am Pur hip hop initiative tukkee ci rappeur bi di DJ Alla nekk léegi compositeur bokk na ci euh, boobule projet ay kangam ci wàllu hip hop ci Sénégal ku ci mel ni fu Malade wala euh, Big D dañu amal ni ki ëllëg samdi ab concert bu mag te maison di cultures urbaines bu Wakam ñu déglu DJ Alla ci micromaria Mariama Diallo. Sénégal ñoo présenté projet bi ñu def mu tudd Empire Hip Hop bi ñu tàmbalee liggéey bi yaa maintenant ñaari at si objectif projet bi mooy indiwaat ñi nga xamante ni ñun ñoo sanc rab bi ci rab bi nga xamante ni moom la ñuy wax le hip hop dur rap hardcore ou gangster et tout quoi ñooñu mag ñooñu ñu ko sanc léegi newatuñ fi ñoo ngi fi sax mais defatuñu ay production yu bari te ba tey ñu ngi xam-xam bi donc loolu moo tax ma ne pourquoi pas ñu indilaat leen même reste que bu dee benn morceau sax ñu def ko parce que amatuñu jot jël seen temps dem studio di ay dix huit dix titres tout pour def album. effectivement c'est toujours dans le concept comme avait fait Mr Ken. quand est arrivé avec Dekkil Rap ba rap woy et tout dafa ne du lii donc ñu ñëwaat si sujet toujours c'est un hip hop mun nañ continuer toujours que si lancer boobu. ci wàllu cinéma Kader Gadji am na rôle bu njëkk ci cinéma ngeen ngeen ko xam ci tuuru euh, Biram ci série bi di d'un homme marié bokk na principaux personnages yu film bi ñu dippee euh, Marabout. film boobu daal di génn ci euh, lu ëpp fukki ci ay salle de cinéma ci Afrique francophone. alors rôle bi nu mu nu ma def man ba jot ci mooy euh, ki bind film bi euh, Kadi Touré actrice principale bi tamit. Mhm. dafa ma soxla woon mu jaar ci xalima e xalima jox ko sama numéro mu woo ma téléphone au début xaw ma ko woon bu baax. mu ne ma moom la Kady Touré dafa bëggoon ma tourner ko benn benn séquence benn film. Mhm. que elle me voit bien gis na ma bu baax ci rôle bi. Euh, mu wax ma rôle bi sa sama m'a attiré ma ma gis sama bopp ma ne ko wax ah, pourquoi pa mën nañ ko mhm. def voilà demee Abidjan tourner ko. waxtaan gu yaa gi ñu sekk ak euh, Kader Gadji dinañ leen ko dégtal euh, ni ki suba mooy doon ganuk seen magasin xalam di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. seen agence de voyage mayu voyage ak seen kénkéyri AAD ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf F24 watt ci mbedd mi l'observateur nañu tey la kuréel gii di force vive du Sénégal ñu naan ko F24 tey ci àjjuma ji la ñu fas yéene gonteeb rassemblement ci place de la nation journal bi nañu waaye ba démb ci guddi nag coordonnateur bu F24 di Mamadou moom ak gars yi mu àndal jotaguñu woon autorisation bi ñu doon sàkku ci préfet bi ñoom ñi woote ndaje mi l'observateur ne nañu ñu jokkoo ak ñoom njorturu rafet la ñu amee li ñu jàpp suñu préfet a jàpp moo di seen rassemblement bi dinañu ko autoriser li sabab manifester gi tribune mi ngi xëy di ñu ko fàttali ba di ñu xamal ne opposition bi ci réew mi ñoo joxante loxo boole seen doole fas yéene ñatamal Macky Sall ngir mu bañ def cim xelam waxi troisième mandat tegal ñu ci ne tey jii ci àjjuma ji ci la waa F24 fas wane seen doole bés bi le jour mel ne ku naan ko réew mi yëpp ngi leen di déglu ne waa f dañoo woote ak manifester tey wooteem fii jamono ji ci diggante waa Pastef ak waa taxaw journal bi di bés bi le jour gis na ne ak ndëgg sërëx la goo xam ne mën naa yàq xew rassemblement gi waa f bëgg a gonte tey ci ajuma ji ci place de la nation le quotidien bal des faux frères la ci gis maanaam ay mbokk yu dul jaaroo ab taal yu war a daje waa Pastef ak waa taxaw seen potum biir néeg le quotidien nee nañu bu ñu deful ndànk ca mbedd dama lañ koy weer la kay bind ne waa f bi ñuy déet le témoigné nañu fi ñu tollu tembe ñoom waa F24 gi woote ak rassemblement tey ji ci ngoon ñoom ci seen jëmi bopp sax xamuñu ban tànk la ñuy ndax ba démb ay boori deux heures du matin jotaguñu woon tontul préfet yi ministre des finances di Mamadou Moustapha Ba mi ngi ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool direct news journal life bés bi le jour ak lii quotidien soleil national di ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne waa FMI di fonds monétaire international programme bu toll ci junni ak téeméer ak juróom fukki milliards direct news xëy di ñu xamal programme bu yees boobee dox ci diggante FMI ak réewum Sénégal ana programme bi ci yan anam la tënk la sine kay nañu waa Fonds monétaire international dugal nañu ci nafak Sénégal milliards 1150 milliards ne nañu mooy koppar yi waa Fonds monétaire international dugal ci keesu état bu Sénégal ngirub jëflante bu yees bu soxal wàllu koom-koom partenariat économique dal na ci sunum réew di Sénégal déggoon ak waa FMI ci programme bu yees bu ñu war a séq mu toll ci 1150 milliards Tribune gis ci 1150 milliards beneen bor bu Sénégal gàddooti ñu gàddu journal La Tribune ba tey ni mi ngi ñuy xibaar ne ARM agence de régulation des marchés am na njiit lu yees Ansoumana Sané lay wuyoo moom Ansoumana Sané mooy léegi directeur général bu ARM wuutu na fa Amadou Abdoul li ma fa ne woon passation de service bi Tribune nee na ñu naan mi ca Linguère fa la feeñe ñoo ngi ko gis ci benn sàmm li tax nag mu jur ak jaaxle gu rëy yéenekaay bi nee nañu moo di moom waaji di sàmm bi am màngaankat la moo tax dëkk yu bari jot na faa jaar ñu jaare fa dem ci source kër taskatu xabaar bii di Cheikh Yérim Seck ñu taaloon ko keroog ca manifesté yi amoon ca Ngor yéenekaay bi nee nañu gendarmerie ubbi na ci enquête te am na ñu ñu ci jot a ràññee te lu yàggatul dara danañu dégg ne am na ñu ci teg loxo loxo dematina gémmiñ yër leen xët mu njëkku libération mbaa bu benn waay bu ñu dóor ci manifestation yi fi amoon ca Yoff Tongoor ba waaji mujju la bu ñu jële ci procureur bu ndakaaru waa ji Louis Ndong la tudd ab ancien militaire la bu dëkkoon ca Yoff ba mu jógee armée da doon liggéeye ne vigile ci ab société de gardiennage bu ñu naan Falcon Sécurité ci bés bu njëkk bi mu tàmbalee liggéeyu bu bees bi ca la ñu ko woowee këram ndax soxnaam jigéenu wérul la maanaam dafa tollu diggante waa ji di Louis Ndong jóge fa mu doon liggéeye doon dem këram ca Yoff Tongoor ngir taxaw jabaram bi mu duggee Yoff Tongoor gis gaay yi di manifester gaay yi doon manifester yaakaar ne Louis Ndong ab gendarme la bu infiltré ca la ñu ko songe dóor ko ba mu jaare ca faatu seen agence de voyage Voyage ak seen kénkéeri